jaajëfatee à vous la mi fois et hello à tout le monde bëgg nañ ziar nañ te di leen delloo ziar mais aussi di leen jaajëfal yéen ñëpp si sa Kenza le comme d'habitude votre adorée animatrice de luxe merci et re-bienvenue sur la chaîne des plus belles chroniques non mais waouh la chaîne qui vous fait vivre les meilleurs moments du game Kenza 221 parce que nag bu ngeen daloo ci suñu chaîne YouTube Kenza 221 mel na ne daloo leen fenn ah, sama parce que bon les li ngeen bëgg a xam ci biir gain bi moom moo koy donc n'hésitez pas à vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Bon les amis, aujourd'hui, le thème porte sur Wa Akatsuki, Wa Akatsuki SN bien sûr. ci un sound bu ñu intitulé Drill Galsen ci sound boobu nag la ñuy ñëw un tout petit peu et de détailler after ku nekk joxe xalaatam ci commentaire donc allons-y les gilets lay down, juste après l'intro bi sama gars on est de retour pour continuer la deuxième partie de la vidéo parce qu'on a défini l'intro et c'était la première partie et comme nous ma dit ko aujourd'hui bon le thème porte sur waa Akatsuki SN parce que euh, après le départ de Mr le groupe a sorti un sound intitulé Drill Galsen tey nag ci sound boobu la ñuy ñëw wax expliquer et détailler avant d'en parler nag nañ dem xooli un peu rek ci vidéo bi ñëwaat léegi léegi ay ci let's go rab gaal seen dina tukki te du jël gaal gi ak akartu kii drill SN ñoo koy te imposé doo fi gis bu UK bi fii restant chien gis nañ fi booyi xaw di mbaw juguñ ci doon yu kii banda chien rakku takku takku takku tigi takku akartu kii bon gis ngeen un tout petit ci vidéo bi jot ngeen ci cof un alors le sound a pour titre Drill Galsen Kesh nag mu ngi ci woon au mais dañoo génnee couplem vu que ni il a quitté le groupe nag boo xoolee sound bi xalil moo ko ubbi te mu ngi naan non sama gars yi déglu leen bu baax li Khalil wax au boo ko dégloo mu ngi naan fitna day jóg neel sa gars buñ dof ñooy bombu Sénégal neel cerey nañ toog non mais fii nag pic am na fi ah parce que Mr Kesh moo ne woon ci sound bu mu mujjee génnee ku ma woo si fitna sa crédit mooy jeex. Khalil ñëw fii ne fitna day jóg neel sa gaay buñ dof donc moom sa qui veut dire que ni pare na pour affronter Mr Cash en fait ak fu naan tamit ñooy bombu Sénégal neel cere yi nañ toog xam ngeen cere moom égal faux mooy maanaam lu nekkul original lu mu bëgg a wax mooy ñoom ay vrai rappeur lañ mais ñeneen ñu ci des yëpp nag ay faux rappeur lañ waxuma ko de Khalil moo ko wax. il a pas sa gaa nga dégluwaat sound bi mu ngi naan wàññi potentiel bi ci game bi xëy génnee secret yi muy gën di leer sa rappeur daa xewi ni cubaloo nee ko du yëngal game bi pour muy clair loo ñeme ñàkk maa ngi ak Akatsuki dañuy génne antidote pour may la soupir non mais Khalil nga quoi sama gars fii tamit ay rappeur la fi sandi boo déggee mu ne wàññil potentiel bi ci game bi foofu One Lyrical lay waxal parce que One Lyrical moo fi génnee album au nom de potentiel léegi moom nee na day wàññi potentiel One Lyrical bi après nag mu jóge ci One Lyrical dem ci Ngaaka Blindé mu ne hey génne secret yi muy gën di leer Ngaaka Blindé moom moo fi génnee album intitulé Secret set moom nag nee na secret yu nekk ci albumu Ngaaka bi yëpp lay génnee déet waat boy déet waay yow tamit ëpp naa def de noo mais mu jóge ci Ngaaka Blindé nag attaqué ki nga xamante ne ni moo di Dip Doundou Guiss mu ne ko doo yëngal game bi loo ñeme ñàkk maa ak Akatsuki parce que nag Dip moo ne woon moom heure bu ko neex lay yëngal game bi Khalil nag nee na doo ko yëngal mu ne ko loo ñeme ñàkk maa ngi ak Akatsuki loo ñeme ñàkk mooy albumu Dip Doundou gis bi donc ci gàttal li mu bëgg a wax mooy lan la Dip Doundou Guiss ñeme ñàkk pour affronter wu ak ñoom ñoom waa Akatsuki non mais pareegul de mu ne waat duñu génnee antidote pour may la soupir Elzo lay waxal fii parce que Elzo moo fi génnee antidote kon moom lay waxal li ma leen wax rek xalil und la pareegul nga dégluwaat sound bi mu ngi naan sound bi laal na ku nekk 100 paquetu kiis mënatoo leen avorter kon raayal sa biir. whip play gars yi gis ngeen fii mots salte yu mu utilisé non mais rab salte lay def mu ne sound bi laal na ku nekk laal ko mbëri tubaab 100 paquetu kiis genre fagaru ou capote ou kawas wala protect mënatoo leen avorter kon raayal sa biir. avorté moom mooy yàq ëmb comme par exemple rek ëmb bu yàqu en globalisant donc lu mu bëgg a wax nag mooy sound bi dugg na leen par la force te mënuñu ci dara mënatuñ ko bañ xanaa ñu dee ayca ñu xuusaat ci couplet bi boo ko dégloo mu ngi naan sarab bi du koddal maa ngi seddaa fi fii nag je pense pic bi c'est pour taal bi je pense nag laa wax pic bi c'est pour taal bi depuis train gañ parce que nag moo ne woon booy déglu rabam di koddal xalil ñëw ne ko seen rab bi du koddal maa ngi seddaa fi bon c'est moom ak ab calmant la rek loo tàng-tàng mu la ok gis ngeen couple Khalil bi expliqué naa lu jar a expliqué Vous leen na gars pic ego trip aussi utiliser salte non mais am sax gën a salté yi ah. yu gën a sax am na si nee undu la yéen ma gën xam léegi ce qu'on va faire dañuy ñëw ci deuxième couple bi muy bu N, xel ñaar moom nag nu dugg see moo quoi boo dégloo sound bi mu ngi avertir Khalil naan ko hey pour def signal ni mu ngi ñëw te boo ko dégloo mu ngi naan seen rab bi dafa ndool ma may ko rime yu riche maanaam rab bi dafa pauvre en fait moom mu ñëw may ko rime yu riche ndóol moom mooy ko amul xaalis ku ñàkk xaalis daal. bon boo ko dégluwaatee aussi mu ngi naan cent ans saa du teggi Cheikh Norris. non mais sama gars yi xool leen rime bu nice bu mu dóor fii saa moom ñun ñëpp xam nañ ko joué katu théâtre la Cheikh Norris acteur film la. qui de joué théâtre qui de joué film Pareil, parce que beaucoup de gloire mu ngi king ori amna aussi Ching Ching. fii c'est côté original ak côté faux lay wax lu faux ci Rabbi original king mais aussi amna ay faux king xel ñaar nak moko wax LMN xel ñaar de té ont pharmacie moom tamit dóor na couplet bu nice tegu ci biir bi dóor ay rime ak wax wax yu saay saay aussi yéen rappeurs yi lu tax ngeen bëgg wax yu saay saay non mais damay laajte rek c'est juste une question en fait. ayca bu ñu jógee ci LMN xel ñaar nag dañu ñëw jàll ci Sori l'officier moom nag boo ko dégloo mu ngi naan ma wax la luy tàkk te du fay làmbi golo góor ak jigéen loolu mooy bànneex bu dul ñàkk te du tey. donc lim bëgg a wax mooy dina leen wax lu dul dañ ba faw mu ne C'est góor ak jigéen bànneex bu siy jóge loolu may loolu mooy bànneex bu dul te nekkul la commencé lu la wax mais man personnellement dégg naa dëgg la après nag mu ñëw dóor ay enchaînement yu graw enchaînement moom ñun ñëpp xam vous point forum la au fait et boo ko mu ngi naan ma dóor leen ci taf taf. duma leen ci taf yu ak texte ñu bon ego trip rek comme ni ko rappeur yëpp di defee tàgg sa bopp mais enchaînement bi neex na wax na salte aussi comme fu mu ne te lu fat-fat luñu ñu juutu ñu kat-kat paro yu salté le utiliser fi bon lol nak mo nekkoon couplem et couplem nice non. enchaînement yeeg rime yi salté na lol sax mais mu ngi cool ay ci sama gaay ba tey ci biir sound bi buñu jógee ci sori l'officier nak dañuy jall ci couple oustaz bi muy tala btb mom nak nag dugg nice vraiment dugg si bu nice sax billaay boo ko dégloo mu ngi nan sen groupe yi comme dajek pétaw bu tasee si la seen mbóot yi mën a feeñ bon moom nag lu mu bëgg a wax mooy groupe léegi comme dajeek pettaaw buñ tasee si la seen mbóot yi commencé feeñ ay mbóot nag mooy ay secret comme par exemple ngay wax secret jàmbur ñu ñëw ne la yaa ngi sulli mbootu jàmbur léegi nag xam nga boo demee ci seetkat mooy seetkat yi nga xam ni euh, pettaaw la ñuy yor buñ lay seetal dañuy dajale pettaaw yépp après ñu tasaare ko pour mën a gis mën a wax lu nekk ci yow moom la talaan ak bëgg a wax mu ne groupe léegi yi comme dajeek pettaaw tasee rek commencé sulli seen mbootu moroom bon après loolu nag euh, gis nañ mu dóor punchline bu nice comme fu muy waxee naan mënoo leen jàpp mel ni ku lettu mèche xam ngeen ku lettu mèche mu mënoo jàpp pour julli c'est ça punchline bu nice la dóor mais sama gars yi boo leen xoolee talaa ci sound bi moom dafa ñëw indi ji ko oustaz parce que nag boo ko dégloo mu ngi wax naan bu ma nuyu yaa ngi jóge ci mballu kon jox naa la saabu laame vraiment jikko oustaz la indi ah mais couple bi aussi nice na tout est vraiment dope. ok sama gaay léegi nag gis ngeen sound bi c'est intitulé Drill Galsen waa Akatsuki SN ñoo ko dóor mais nag assuré nañ ko nice même Black M sax posté na ko sur Instagram indi nañ rap salté rap salté nag foog ngeen comprendre ko surtout Khalil parce que nag moom lu mu sentir lay wax lu mu sentir lay def bu bëggee saaga day saaga directement. xam ngeen ku nekk ak ni ngay defee sa rab bu salte bon par exemple ñu xool ki nga xamante ni moo di Dip Doundou gis moom ba mu doon def rab salte ay waxi deret la doon wax ay waxi Illuminati loolu rek la doon wax Xalil moom saaga lay def ak waxi bëri tubaab wax yu saay-saay sax LMN xel ñaar assuré na ko nice moom xam-xamu bind la yor dafa yàgg mbappat sori l'officier aussi indi na point forum muy enchaînement rim yi ak saltel fépp yéen a ma gën a xam Tella aussi donne ay punchline saltel yéen ma gën donc en globalisant sound bi nice na surtout clip bi aussi dafa mol ak beatmaker bi tamit job bi mu ngi cool légui nak man yéen lay laaj yéen lay laaj de nan ngeen gisee sound Akatsuki bi ak pig ñu gaay ak seen yenn mo salte est-ce que tamit selon vous le départ de Mr Cash marqué wul ci biir sound bi à clavier claviers bàyyi mu tëmb Bon, c'était ça la vidéo du jour et c'était votre site Kenza. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de partager, oui, de partager et surtout de liker. Comment sur Instagram sous le nom de Kenza l'officiel. Voilà sur ma page Facebook Kenza 221. Je suis aussi sur TikTok sous le nom de Kenza National. Dawlen Gaungen, abonnez-vous pour voir toutes mes folies. Comme peace and love la mi Jam am à la prochaine et gros bisous à vous.